rawatina waa Dakar nga kees ku nu jàpp yàlla tax moo nu gënal Mbakke nun na ñu ngi sa gannaaw suba bangoon ngoon dina nga yeggale fi nga bëgg jëm yàlla ñu fa jëm pétraay bu moo waral ma def noonu ni ma def Mbakke yàlla na mu gudd fan ak koo xam waa mi waa ajaratu amitin laa ilaaha illallah eh. falaw bu sa jaxee yow ba càmmiñal ma reema waaw kii day day sama xarit sama wasila wala ñu ko tudde sëñ Fallu ñaasi kanam loolu laa sëñ Abdou Karim loo sëlëm sëlëm du dañ waa ajaratu nun di ni ngi ñii rek topp ci yow bëgg leen lu ngeen ne loolu la ne lu ngeen bëggul bëgguñu ko di jigéen bëgg a liggéey tamunu suñu jàppale nun de yàlla na ngeen yeggale ci duwal yi Sëriñ Tuuba bëgg naa leen de bu doon noppee nag ngeen wax ci sama borom kër pour ma waaw ah, dama ko amagul sëñ bi nan wax ci loolu. waaw kon la dégg ngeen bi ñuy bëgg a dugal bàyyi lool ndeysaan tàccu leen. kan jalamadun sanne bayira binane jambar nga wawa kan jalamadun damne bayira binane jërëjëf jërë ngeen mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziare di bu baax sant suñ borom mi nga xam ne moo may dëkkandoo yu baax ba soo wootee ñu waaye Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu yaag njabootu Serigne Touba gi nga àndal waaye yaag jëwriñ yi nga àndal di séeréel ne nag sa maama ngi ci jataay bi ñu di ko wax Baye Cheikh Diop Matar bokk ak maam maam ah, sooda moom soxna may wajur soxna ak sëñ Amadou Moutar maa nga nee toog ñoo bokk benn baay ba mu déggee ne da ñëw la génne ab seesam teg nee ne ko bu ñëwee ne ko sa maam na mi ngi sa pegg bu ñu noppee incha allah danañ fa dem nuyu ko moo sëñ Amadou Mouta dafiy yónnee mboolem sëñ Cheikh Darou Rahman dafi daan ñëw ndax seen maama maa nga nee toog. ànd bi ñu ànd ak yow balaa suñ tàgg bee tegg ko da ngaa dégg wiiw conseil te loolu am nañ ci preuve bu wér te incha ko gañee ndax fii ñu dëkk 35 bureau de vote la mi ngi fii 35 bureau de vote. xam naa bi ñu defee sondage guy mbind quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt koo wax mu ne man kay bu ma naree war fas moom saa bàyyi ñu ngi lay seereel ne mbawle maa ngi nii ñun nag lan la waxoon rek ñun amuñu kàddu waaye mbooloo mi daal maa ngi bëgg soxna amitiin soxna yaa ngi nii toog nga jàppale leen dafa leen ay formation yëpp loo man ubbil leen ay compte financement nuy liggéey foo gëstoo gis leen ndax Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma baax ma ka daa waxoon ne ku amul njëriñ amut koo xamul noo koy jariñoo moo am bu la leeree ne ñii lii ngay amee ci ñoom njariñ ñi ngi nii tiin doxuma sa diggante ak ñoom bala nga fay jógee ñi fi responsable yi fi nekk yëpp danaa la jox seen i numéro ngay coordonné ak ñoom yéen ñi nga xam ne ni yàlla dogal na yéen fekk si bulletin bii danañ ko fi ba waaye mooy bi nga xam ne moom la ñuy wote bu yàlla dogalee nga dem ci mbaar ma juróomi kayit la juróom wet goo ci tàmbale rek bii mooy na ca digg ba wet goo tàmbale rek bii mooy ne ca digg ba bii daal mooy coalition Yewwi Askan Wi te Serigne Fallou Mbacké jiite département bi ñuy ñaan suñ borom ci barkeb maamam yu tedd ya suñ borom dolli ko may ndam waaye nag ñuy ñaan ndam yooyee bu koy am noonu waa Touba Guy Mbind yàlla nañ bokk ci ñàkk koy may te loolu maa ngi koy séen soxna maam jaara ja ñoom ñi mu àndal ñëpp kenn ku ci nekk ñu xam ne daal fii moom Serigne Fallou ngi nii Ayda wax na ko léegi mooy borom Touba. mooy borom Touba kuy sa baay Serigne Mbacke Sonlo kuy baayam Serigne Cheikh Gaynde Fatma kuy maam Cheikh Moussa Mbacke Serigne Touba Khadim Rasoul bu dee wër yaakaar naa wër te xëccam réew Mbacke Balla jërëjëf Mbacke ñu ngi lay dalal baax jërëjëf Mbacke. waaw waaw ndeysaan waaw waa dama ni kii dimbali sones bi. ki nga xam ni moom la Serigne fallu Mbakke moom sëriñ Mbakke Soxna loo doxale digganteem ak ndaw ñi muy jàppale ndaw ñi nga xamante ni yàlla daa dogal ñu doon jàng ba jamono xaw a jàpp seeni waajur ñu xaw a mel ni man seenum njàng nar a yàqu sëriñ Fallou di ko boole jàmbaaram jii mu di leen jàppale ba seenum njàng àgg ba ñu mën a liggéeyal Sénégal waaye di jàppale seenum réew muy sëriñ Mbakke jaw waaye xale yu jigéen yi nga xamante ni amuñu ab liggéey tamit mu di leen jàppale kon na ko ñëpp tàccu na ko ñëpp tàccu waaw ba mu bari. asalaamaaleykum waa Guy Mbind ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp. ngi leen di siyaare yéen ñëpp kenn ku nekk turam santam di jiital ci nuyoo bi Baye Ibrahima mi nga xam ne moom la ñu fekk si tey di ko jaajëfal bu baax di nuyu xale yi nga xam ne itam ñoo fi nekk lu ci mel ne Madiaye Diop ak ñoom Mor Ndaw ñu ngi leen siyaare bu baax ak jeunesse bi nga xam ne yàlla dogal na tey ñu sol ay t taxaw nii di ko wan ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Fallou Mbacké que quartier Guy Mbind la njëkk a commencé porte à porte jël nañ fi lu toll ak fanweeri xale yoo nga xam ne ñii sol t yi tey ci lañ bokk ñu ñëwoon dugg ci koñ yi koñ bu nekk kër gu nekk ñu dugg fa waxtaan ak nit ñi wax leen lan mooy coalition Yewwi Askan Wi ak buñ ca àggee nan la ñuy voté kon loolu mérite la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax xale yi. di présente rek délégation Serigne Fallou comme ni ñu ko waxee à tout moment dañuy jóge fii jàll feneen te waxtu wi dafa xaw a gàtt moo tax xam naa jombul ki nga xam ne mooy introduire Omar Mbaye soo paree ñaari orateur rek lañ fi am amitin ngay dugal suñu paree nga jox ma kuram wax ci turu Serigne Fallou Mbacké. waaye daal ci leeral Baye Ibra jarul ma lay présenté nit ñi ndax xar kanam yi fi nekk miin nga leen bëriwut lu sëñ Fallu dem di ànd ak délégation bu toll nii kon jàpp naa ne jox na dayoo sa bis ndax ni nga waxee ak moom ak ni nga jëfee ak moom beneen bi ci des itam mooy fa sa fa sa tur nekk ca list bi doy na mandarga kon loolu itam mirit la danga nga koo liggéey ñu delloo la ko comme ni ñu koy waxee mbooloo mi kon Serigne Fallou Mbacke moo ñëwal boppam ànd ak Serigne Abdourahmane Mbacke ànd ak Serigne Cheikh Mbacke Gelawngal ànd ak Makoura Thiaw ànd ak responsable des femmes am ajaratu amitin ànd ak soxna lay lay sëriñ Bassirou Kayre soxna Maguette Fuma soxna Soda Ndiaye Cheikh Mbacke Diaw Moustapha Kane Moustapha Diop Baye Fall sëriñ Cheikh Kanji ànd ak Mourtala Niane Mohamed Dian ak Omar Mbaye géwélu géwélu Xaadim Rasul donc noonu la délégation bi composé woo kon xam naa pour ñu bañ a guddal rek ñu jox la nga introduire amitin mu wax ci soxlay jigéen ñi bu ñu paree ñu jox sëriñ Makoura mu wax ci turu sëriñ falu Mbacke. Ah, waa guy mbind ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen nuyu nag ci turu Serigne Fallou Mbacké ak délégation bii mu àndal waaye nag di leen nuyu ci sunu turu responsable Adja Amitine mi nga xam ne mooy responsable des femmes di leen nuyu tamit yow Baye Ibra ñi ngi lay nuyu baax di la ziar di rafetlu mobilisation bi fi am tey ndax fi ku ko gis xam ne wax dëgg yàlla mbooloo mi fi nekk macha allah. ñu xam ne nag li nga xam te ne moo ñu dajale fii muy élection locale yi di ñëw muy ñu war a xeex ci list coalition Yewwi Askan Wi liste bii ñu fi tax taxaw tey ji nag xam naa du ma ci sori sax ndax Baye Ibra moom yéen incha allah dañoo war a jàppaleen wax seen leader seen responsable lañ samp investir ko ci position boo xamante ne bii macha allah kon yaakaar naa ne yéen dañoo ñëw pour ànd ak yéen ngir ñu fal Baye Ibra parce que fal sëñ Fallou Mbacke mooy fal Baye Ibrahima yi ndax mi ngi ci liste bi te yéen bu fa nekkee ëllëg li muy kaasu yéen la koy kaasal waaye nag ma dégg fi ay njàmbat yi nga xam ne moom la jigéen ñiy wax muy ay formation ak ay financement formation de liggéey nañ ci loo xamante ne bii ci turu Serigne Fallou Mbacke mii 2017 ba léegi bari na foo xamante ne bii jaar nañ fa former ay jigéen tey jii seeni kees mi ngi ci un million yu tegal. ndax lan sëriñ fàllu de du jàng du may nit ki aw jën daf koy jàngal nu mu nappe ji parce que fekk nit muy muy muy ci koñam jox ko xam-xam boo xamante ne bii sooy dem fa ko fay fa koy bàyyi te su ëllëgee daf ciy génnee bénéfice boo xamante ne bii dana dem ba dootul soxla ay banque donte nag financement fi mu ne ku waay wax wax ko kon nga xam ne li nga xamante ne bi mooy doxinu sëñ Fallou rek mooy du ñu jàngal nit ki aw jën di maye ay ñaar téeméer ak junne ki déedéet daf lay jàngal xam-xam boo xamante ni bii su fa jugee fa la koy bàyyee ànd ko suñu responsable nga xam ne fu mu for fu mu formé soo lëggee mu ñëw fa def financement kon nag ñu leen di ñaan ndax ku ne xam na ne di fi si ak élection yi jàmp na tam ñu xam ne ku ne xam na ne élection yi suba la campagne bi di commencé te diggante fii ak campagne bi 14 jours képp la ñu bëgg nag li nga xam ne ñu ngi leen di ñaan Adja Amitin mi incha allah dinañ àndaat ñëw fii defal jigéen ñi guy mbind formation dinañ leen jàng def ko aussi ay financement ndax ku ne xam na ne formation buñ la jàngalee xam-xam ba nga man ko daanu la financé ngar nga am loo jàpp. kon nag li ñu leen di ñaan yéen sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne bii ku falu yéen a ko fal ay jàmbaar ngeen fu ngeen nekk fu ne fu ñu mos a woote fu ne jigéen ñaa fa man kon nag ñi ngi leen di ñaan ngeen voté liste bii incha allah te kenn ki nga xam ne mooy responsable bi jënd numéro Adja Amy Tine incha allah dinañ fi ñëw defal leen formation jàngal leen xam-xam boo xamante ne bii bu ëllëgee bu ñu dem fi lañ koy bàyyi mais nag ngeen xam ne li leen di tax di liggéey tey jii derrière sëñ Fallou Mbacké koo gis doo laaj fu mu dëkk. ndax koo ko gisee Ba Ibra bi ngi dox ci ak njàmbaar la kon nag amut tam lu jigéen ñi parce que du tey la taxaw fii naan amitié sama jigéen ñi à chaque fois bu ñëwee que sëñ Mbacke soxna loolu li mu njëkk a wax mooy ajaa amitié sama jigéen bu leen fàtte kon moom fàttewu leen benn yoon ngalawaay li nga xam ne moom moo ko tax a jóg muy liste bi na ngeen ci jëmbat ful la ju mat sëkk ak fayda ju ma sëkk ba bu le 23 jotee incha allah ca ngoon li si askan bi jàll ak euh, largement ba nga xamante ne bii su boobaa seeni conseil ñooy taxaw leen jàpp jooxal seen njàmbat ca xam fa ni mooy mooy njàmbatukaay ba asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu baax di jaar ziar jërëjëf. tabarkalla macha allah waaw waaw ngoog de. waaleykum barakaatu. Eh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare lu bari lool ci turu sëñ Fallou Mbacké moom sëñ mbakke soxna loo nuyoo bi ak siyaar bi mi ngi koy toog ci loxol sëñ Ibra Kane mi nga xam ne doomi koñ bi la sëñ bi nee na am na mbégte lool ci jàkkaarloo gum jàkkaarloog yéen ak ni ngeen ko tertoo ak Eh, taxaw ngeen taxaw ak mbégti mi nga xamante ne bii mi ngi feeñ ci seeni kanam solo si nag ñi jàll junj nañ ko sëñ bi dafa ñëw ngir libéré nu comme ni ko maamam ju tedd ja defee woon di Seex Mbàkke Gaynde Fatma kon kàddu gi jëm ci yéen mi ngi jëm ci mbooleem kuy dégg sama kàddu nan nu bàyyi xel tuuti ndax waxtu dafa xat am na beneen jataay bu mu war a dem. ñun ñoo war a sàkku si ndimbal waaye moom warul sàkk si ndimbal ndax yaakaar naa ne koo xamante ne bii sëtëb sëñ Tuubaa nga jamono la soxla waaye soxla woo jamono waaye nag ñun dañuy ay taalibe te moom mii kat ak nu mel ne ñoom ñun ñoo ñëw joxe suñu bopp na ko aslamtu nafsi te yëg nañ ne fii réew mi tollu ci njaam lañ nekk yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xamante ne bii gis na gis-gis boobu wan ganaaw lépp di xeexal askan wi ngir askan wi am ci am am am liberté kon nag ñun ñoo war a ñëw ci sëriñ bi di sàkku ci moom mu jiite nu yàlla dogal mu nangu ñoo jiite kon na ñëpp ànd ci raasi ci gannaawam képp koo xamante ne bii da nekk ci dëkk bii tànn benn candidat bu dul sëriñ Fallou tànn nga jubadi wala tànn nga ak ñàkk xam ndax kandidaa yëpp moo ci gën candidat yëpp moo ci gën ndax jëmmam jii kat ku ne a jàkk xam na ne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma mooy maamam te lu la waay di gënee lu mën a doon lu dul lu dul xam-xam lu dul jukko gënu la moom mii nag fa mu bokk bokk na fa waaye lim gën la ñëpp te gën kenn gën lewu ko muy jukko du wor loolu seere nañ ko ci moom lu la wax loolu moo am lii mu wax e soxna Ndeye Leye jàllale ko bu yàlla dogalee li muy yootu mu jot ca muy baatab dogal fas sa yéene def lu raw loolu ndax la woon wee la weesu mooy wane li nga xamante ne bii mooy dëggal kàddu tayam gii kon na jàppale Ibra kan ndax moom candidat la falu mu feggoog moom di liggéeyu liggéeyandoog moom di doomi guy mbind kon jàpp naa ne bu ngeen falee sëñ Fallou Ibra Kane ngeen fal te Ibra mii kat am na fu mu nekkoon di fi yëngu magam jëmm am na am xel dofut ji di jàpp ko su bàyyee fa mu nekkoon ñëw jàppale sëñ Fallou mii xam na ne ak lëndëm bokkut ak leer nanu yeewu nanu yeewu nun waa Touba nanu yeewu surtout jigéen ñi lu waay di bëgg Touba nga koy wutsee bu ñu dikkee nax ñu jëfandikoo nu delluwaat te yaakaar naa ne kat Touba ku fi ñëw. waruñu la utiliser kon nag na ngeen taxawuwaat képp koo xamante ne bii yàlla dogal na biir sa wat ba ñu yegg ca na nga jël xam ne yow tey jii lii mooy sa kàddu na nga jël sa carte d'identité dem bureau ba ngay watee nga xool picc mi ñaari picc la xob yi juróomi xob la juróomi xob la waaye juróomi xob yooyu kenn lu jàng di jàng di xam nga am picc picc moomee ngay lem ñaar yoon dugal ko ci carnet dugal ko ci sa ci sa ci sa enveloppe yóbbu ko ci irnu ba laal ca encre ba dem ñibbi toogi di xaar résultat noonu lañ koy defee yéen jigéen ñi bu ngeen buñ libéré góor ñi libéré nañ jigéen ñi yéene des ci kër yi li góor ñi dose li góor ñi yore dëgg-dëgg matut yéene mottali yéene dem yéene dikk wax dëgg yàlla jàppale lu war na waaye il faut ngeen jàppale ku mel ne sëñ Fallou mii bu toogee toogaale leen yaakaar naa ne loolu mooy fula ji kon képp kuy dégg sama kàddu na bàyyi xel ne sëñ Fallou nee na nañ ko jàppale ci lii muy yootu te ñun ñoo ko war a jàppale mooy yeweeku ñu ngi ci ñaam te yëgul loolu waaw ñu ngi may wax ne wa kàddu gi kàddu gi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gàttalu gàttalu fii ndax xataayi waxtu wi ndax ñii fi toog nii ay doomi soxna la ñu nekkuñ ci ay caaxaan kon nag yéen war a jóg yeweeku nekkun politique boo xamante ne bii dangay ngay nit ki mu wan la ginnaaw fii la dëkk fii la juddoo fii la yaroo jàngi bitim réew dikkaat yaakaar naa ne kooku jomb na di wax ab taalibe lu lu kon nañ jàpp te bu nu bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kon xam naa dangeen dañuy tàllal rek sëñ bi daal di ñaan tàllal leen tey wax amiin. tañu fas ci sëñ Fallu am ndam lu yaatu ah. amin amin raay leen ci seeni kanam aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakatu Seexul Xadim ñi ni seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax sëñ Ablaye question bi ñu laaj danañ sawar lool ci tontu ci am ci mbégte bu baax ñun ci ay jamono de Ibra Kane APR lañ doon wax boobaat am na lu ko sababoon sëriñ Serigne Fallou Mbacké mii taxaw tey moo jàppoon ci loxo Macky Sall boole ma ak moom am sëñ bi déet ne ko maa boole ak moom sama sama taalibe la sama xarit sama lépp 2008 waaye yàlla dogal nag barab boo fa nekkee te gisoo fa sa bopp amoo fa benn njariñ wàññiku nga fay def waaye yokkoo fa nag soo dee askora da nga fay jógee te depuis ba ma fa nekkee 2008 ba léegi keroog ba ma ko fekkee këram këram laa ko fekk maire Mouss ne ko président boobu président assemblée la ma ne président doon nga directeur de ba ma ko nee doon nga directeur directeur parti socialiste tax ma ko wax ma ne ko doon nga directeur ba doon président assemblée musuma xam sa bureau waaye tey jii nga xam ne nag euh, ñi ngi lay bund xataal te fu ñu la waxee nga ne man sëñ Mbàkke Sonlo tax ma xam ma ma dugg yoonu murit man day sëñ Mbàkke Sonlo doon ne ci naaj may na ci ker fas naa yéene lépp loo nekk ma ànd ci ak yow mu ne ma incha allah lépp lu ma nekk danañ ci waxta man da la ma ko waxoon def naa ko moom nag na xoolal boppam ndax la ma waxoon def na ko wala déet man nag wax dëgg yàlla mënumaa la sëñ Modou Makhtar waxoon ne man damaa ànd ak nit euh, daan waaye duma ànd ak moom di xalan ko loolu laa wax xool naa ba xam ne président ko ànd ak moom da ngay xalan ko ma bàkko fa bis na tey nag maa ngi coalition Yewwi Askan Wi ci gannaaw Serigne Fallou Mbacké moom sëñ Mbacké soxna loo bis na tey maa ngi leen di xamal ne depuis 2008 ba léegi tey jii laa mas a gis sama tur ci ab kay aw kay tey tey 2021 bii 2022 bii ci laa gisagun sama tur ci aw kayit teyit sëñ Fallu Mbàkke mi moo ko ca dugal coalition bi nu nekk liste ba mu nekk di liste majoritaire bu sëñ Fallu jàllee incha allah danañ jàll te yàlla na jàll ñu ànd ak jàll kon nag may wax nag képp koo xam ne Ibra Kane sa soppe la Ibra Kane sa nit la foo man ne ci biir réew mi ak bitim réew maa ngi lay ñaan di la jox ndigal na leen nan na fi wëng ki sàll tey ànd ci liste Yewwi Askan Wi ànd ak sëñ Fallou Mbacké wa salaamaaleykum wa rahmatullah